them when solo, solo Dama set, dama fresh, dama when I solo, solo Size and never cash, dama when I solo, solo Mundo duro, rafa fast, dama when I solo, solo Dama when I solo, solo Dama when I solo, solo, solo Sega size and mama bugger, bugger No luchi man Sega size and mama bugger, what? No luchi man uh-huh. Sega size and mama bugger, what? No luchi man Sega size and mama bugger I'm class, I'm just, what lies under not God en place pare seeni flash dama koy sanse ak zéro faute melokaan dama ko jox cër moo tax maa tey di jaay taar lu ma def day nice te du metti te du tar wuti safara ak i sumbu fu ma teew sawi tëddi te anytime damay pare kon doo ma bett ci bëccëg a guddi damay dem sama yoon te ku ma salaam naa ko sukki kon nag bare leen pare leen ku fi andi sa nako budi ko buddi kon ngeen ma lalal ay tapis rouge ma leen di ay billet vert ñoom ñoo ngi ay saxu douce may na lu sedd ci sama vert bu yàlla defoon sax ba ñu nekk ay seex booy du tax nag ñu nuroo da nga bon da nga soxor da nga iñaan ma sa jigo mais saf bulldog nangal dayo ku way, da nga tit ba mën a toog toog nekkate rek ma fan waay fii saa yu ma gisee man de maa ngi bëggee te fu la fekk sa xol baa ngi te boo nee mënu ma solo <laughs> ya, solo Assalamualaikum set, dă-mă fresh, dă di nuyu di leen siyaar di nuyu sama mbokk yi nga xamante ne ñoo ñëw pour publicité waa Mboro yëpp foire bi waaw man la Mboro kër Kan doon seen xarit seen waa tey nag mu mel ni dañoo ñëw Mboro indil leen lu rëy rëy rëy macha allah mu doon loo xam ne tey lu jafe la barki alxuraan dëkk yu bari bëgg ko mais am ko yombul mais tey képp koo xam ne yaa ngi Mboro di dégg suñu kàddu te di seetaan ñu ngi lay woo si foire bi nga xamante ne moo nekk si baraanu Cheikh Sidaati leen wax ne nag foire bi ren képp ku fi dugg di nga xam ni foire yëpp daan nañ riis mais bu ren bi amu si moroom képp koo xam ne nag yaa ngi dégg suñu kàddu di doomi Mboro man pap Diba ma may lay wo nga ñew jappale sama gan yi ñew wane sa bop ñu xamni wa waa Mboro amuñu morom mu melni nak tay ji dama leena fasiyene baye ak wa Vita TV ndax yaakar na Vita TV kep kuy doom Mboro xam nga ko ndax ñun ñi bu ñu demee bay seetaan nawetaani Mboro ñom ño tax nek ci àll bi diko ko seetaan dama leen di ak ñom ñu dugg ci biir foar bi wan leen bagage yi kenn ku ne fa nga tok ñu fekk la fa nga seetaan ko ta do déplacer wu waaye yéen a ngi nelaw am ah, commencé na booy ko ci biir 1600 asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk mboor yëpp maa ngi nuyu di leen siyaare leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen man la Ibrahima Ndiaye di présenté wu fii ci foire bi waaw foire bi ñu ngi nii laa fi ñëw maa ngi doog a tàmbali lal bi nii daal yi damay doog a génne rek mais am na yu dàq ci kaw sax waaw maa ngi nii sale prégu ma ko wa bëgg naa daal ma génne dëkk bi yëpp gis seen bopp ñu xam ne Ndiaye ñëw na Ndiaye jaata Ndiaye soxla nañ ci laay nañ ñëw xam ne foire moom dara maa ngi lépp a ngi fi am na daal am na saak am na ay chaîne lépp am na fi am na ay jaaro yëpp a ngi fi daal dara manqué vraiment daal di seerul 1000 francs rek laa leen ko yombale 1000 francs rek loo jël 1000 francs nii pay 1000 francs cerex 1000 francs asalaamaaleykum waa mbooloo maa ngi leen di nuyu waaw man la Modou Diouf day far waaw foire bi nag moom wax dëgg yàlla actuellement nii wax dëgg yàlla dañuy doole kii quoi dañuy door a exposé affaire yi waaw léegi incha allah xam naa ci kanam dina dox quoi waaw mais sant yàlla rek client yi ñu ngi ñëw ndànk-ndànk saa yu waaw non Ndiaye moom seer bi moom gis nga ay 1000 francs ay tubéy 1000 francs seewu quoi maam boor ak tay moom wax dëgg yàlla ay jëndkat lañu de waaw maam boor wax dëgg yàlla man moom yàgg naa fee ñëw quoi mais wax carrément ñoom dañu jënd quoi waaw maa la première ay foire ak mais xarit ñoo ne Mboro fi bagage dina dox moo tax ñuy dem mën a leen xaar ma ñëw ànd ak yéen rek waaw li ma waxoon moom maa ngi koy gis moom ni mu commencé moom bu ko bu ko continué moom xam naa ne bala maa ñibbi li may jeexal. maa leen nuyu di leen siyaare di leen nuyu yéen waa Mboro tamit ñëw andil leen tamit ay bagages yu rafet yu doy waar. ñi nga xamante ni fii ci foire HLM bi andi leen ay xeeti baax baax yoo xamante ni mën ta ñàkk si jigéen quoi li ci mel ni ay xeeti cristal yi may jaay ak ay suus yi ak ay rob tamit ak yeneen bagage tamit yu xaw a doy waar di leen sant yéen ñëpp tamit o oh, sant yàlla rek instant bi ñu ngi installé instant bi di xaar client yi instant bi ñu installé xaar client yi ñu ñëw defar nañ ton lal commencé rafet lal lu rafet tamit aussi di xaar tamit client yi ñëw ñu jaay leen prix bu yomb boo xamante ni dana wuute ak prix bi xamante ni moom la marché di jaay. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Abdoulaye Cissé jóge ko Touba waaw ñëw si foire Mboro bi. foire bi ñoo ngi ñoo ngi sant yàlla nag moom ñoo ngi ñoo ngi ñëw nan indi nañ bagage yu rafet yaa ngi nekk installé nan li ñu war a installé di xaar waa Mboro nag ñëw. waaw indi na ay bis yu mucc ayib indi naa jaaro baaraam indi naa jaaro nopp indi naa ay takkaay original ay plaqué pire lu moom laa indi mboora moom xam nga sama dëkk la bu ma dee fi ñëw moo tax dama koy waajal moo tax daal waa mboora maa ngi leen di woo ne leen indil naa leen ay bagage yu rafet yu mucc ayib bagage yoo xam ne si ne ay plaqué original yoo xam boo ko takkee mënoo koo xàmmee ak or léegi moom kenn kenn nekkatul di takk ay or di di da ngay ñëw jënd si plaqué yu baax yu rafet yi boo ko taxee kenn du ko xàmmee ak góor moom daal waa Mbour maa ngi leen di woo ne leen xamal ne indil naa leen ay bagages yu rafet yoo xam ne si ne ñoom rek ñoo tax ma ñëw indil leen ko. non prix yi moom bu ñu ñëwee prix yi tawfeex laa leen koy defal man moom xam nga moom man maay laay xéewal fi moom ku fi ñëw moom bu soobee yàlla boo duggee boo génnee da nga ne ma yëgoon kii fu mu neexee dinaa ko woo parce que man prix yi may defee moom prix yi tawfeex rek yu yomb sax. alors moi je m'appelle euh, Thibaut. Je suis de, de la centre de la médecine traditionnelle béninois. Donc je quitte du Bénin. Donc euh, j'ai attendu qu'il y a une exposition ici à la fois de Mboro. Donc du coup, je suis venu vous présenter quelques sortes de mes produits. Que voici. Euh, bon, ce sont des produits traditionnels uniquement faits à base de plantes naturelles sans effet secondaire. Et nous avons plein de différents produits, comme les hépatites virales ABC, et vous avez aussi euh, les traitements de la faiblesse sexuelle et éjaculation précoce, ceux qui sont euh, en manque de spermatozoïdes, c'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas à faire des enfants. Nous avons plein de produits pour Les traitements de rhumatisme goutte. Nous avons aussi les traitements pour les ulcères gastriques, les plaies au niveau de l'estomac. Nous avons aussi les traitements pour les hémorroïdes. Nous avons beaucoup de produits ici quand même. Ceux qui sont intéressés, veuillez m'écrire sur WhatsApp ou bien appelez-moi directement sur le plus 221 78 833 88 23. jaarama ngay laa tudd li may wut ci foire bi ñu di samay doom sama kër a ngi nii ma dend ak ñoom yaa dégg ñu ñëw di lal nak ma ñëw di leen seesi ba xam ci lu ñu allah bagage mom. Né nit ñi gaaw ñëw rek loolu rek laa ci gis fi mu nekk ñi gaaw ñëw jënd seen lépp yomb na wax dëgg yàlla séeraluñu dara. asalaamaaleykum man la Ousmane Thiam bon ñëw fii ci foire bi exposé fii ci foire bi. waa bon Mboro nag première édition bi yi fi jàll yëpp mosuma fee ñëw mais tout le temps dañ naan ma dafa neex comme ñi fi ñëw bon sama naataango yi di fi ñëw di jaay bon ma am envie ñëw fi xool ba xam découvrir daal dëkk bi en même temps vraiment macha allah ñu ngi doog a installé mais man li ma gën a neex ci dëkk bi mooy seddaay bi parce que fi ñu jógee dafa tàng mais fii sedd na en même temps climat bi neex na en même temps ñu fekk ñu fi ñoo xam ne dañu dalal. foire bu demee nii rek da ngay am yaakaar parce que ñi ngi ñëw di visiter ñi ngi ñëw di mbooloo maa ngi ñëw parce que ñun defaguñ sax caravane. démb ak tey la installé mais mbooloo maa ngi ñëw comme mbooloo maa ngi ñëw di xool di jënd benn benn di nga am yaakaar ne fii ak ba nga fiy jógee daal di nga fi gis sa bopp. non seerul parce que foire boo gisee mu am bayre bon bagage yi ñuy indi du am ci dëkk bi dëkk bu ñu ko mën a samp bagage yi gaa yi indi du fa am en même temps day yomb parce que euh, par rapport ak ki ki jël fii magasin di fi jaay prix yi mu leen di jaay bokkut teg ñun prix yi nga xam ne dañ koy indi di ko jaay mooy gën a yomb daal.